dal leen ak jàmm sen seen bii di seen njëriñ TV Sénégal kiñ dippee Dior Diagne nekk jabaru ancien ministre de l'intérieur ñu dippee Antoine Félix Diome ci réew mii di Sénégal kookee daal dinay porter plainte mais day setal deram ci benn coow li nga xam ne ne dañ ko ci daal di tiiñal si li ni mel lu yàggul dara waa bi ñu dippee Sénégal dañoo publier benn article daal di koy jëmale ci kiñ dippee marilo daal di nekk doomu ci kiñ dippee Ismaïla Lo te kookee lu ko daal di yóbbu kaso ñoom ne kii di mariloo te doon wër di escroquer ay nit ñoom ne kookee di mariloo nag ba muy wër di escroquer ay nit leen doon wax ka ne daa am ay marché yi nga xam ne ne état bi moom moo ko jébbal te kiñ dippee Dior Diagne nekk jabaru kiñ dippee Antoine Félix Diome nekkoon fi ancien ministre de l'intérieur kookee moom moo ko jébbaloon na marché yooyee ñoom ne li ni mel moom moo sababoon ñu daal di jàpp kookee ñu dippee Marilo daal di koy tëj ci kaso bi waaye tamit ne kookee di Marilo ginnaaw ba ñuy amal ay enquête jëmale ko ci escroquerie boobee mu doon amal ci ay sénégalais ak ay sénégalaises daa amoon ay personnalité état yu bëri yi nga xam ne ne dañ leen a tuddoon ci mbir moomee waaye ñoom ne kookee di Marilo rek lañ mujjoon a jàpp daal di koy tëj ci kaso bi ginnaaw ba waa Sénégal fësalee xibaar bi ni mel nag kiñ dippee joor Diagne nekk jaboru Antoine Félix Diome moom daldi dinay porter plainte waa rédaction Sénégal ba si li ni mel ñu daal di ciy convoqué kiñ dippee Massamba di directeur bu publication ba nekk ca biir Sénégal kon kii di Dior Diagne ginnaaw bay xibaar fësalee que ne complice la moom ak kiñ dippee Marilo kookee di Dior Diagne daal dinay plainte ne ngir daal di seetal deram ci coow loole ñu koy daal di tiiñal ci réew mi di Sénégal